bu ñu ñëw tamit am nay plateau yu ñu war a amal yoo xam ni li des lépp ci lañ koy mottalee ba ba ca conférence de presse bañ war a def yi Masaalikul Jinaan bu ñibbee lool lépp ci programme bi la bokk culture waajal nañ lu bare bari bon na ñu toog teewlu sëñ Ahmadou kon léegi danoo bëgg ñëpp toog sëñ Ahmadou daal di ubbil nu fii waxtaan wi nu war koo tëjee ji maayum Mbàkke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 wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di sant yàlla bu baax a baax bi nu mayee nu ñëw fii fi maayo fii fi eh, Gabon di fi jeex si jeex yi di ku di xeeñtu si ngirum sëriñ ba di barkeelu si ci jéego yi sunu yaakaar jooje sunu soppe bu mag boobee nga xam ne mooy sunu lépp di siyaar bu baax kilifa yi ci jataay bi di ko jaar ci sëriñ Basiiru moom sëriñ Muntaqa ak mbokkam yu baax yi mu àndal yépp waaye di siyaar itam sëñ Cheikh Khadim Fall ak njabootuk maam Cheikh Ibra gi mu àndal yëpp di siyaar itam njaboot gi ci dëkk bi di ko jaar ci sëñ naa Bousso moom sëñ Fallu ak sëñ Cheikh Mbeng ak njaboot gi yëpp ak mbokki bi yëpp sëñ Fallu ñëpp rek nga xam ne ñoo amal yoon wu sell wi nga xam ne moom lañuy ñuy doxi te mooy yoonu xeeñtu ngirum sëriñ ba waaye di ndokkeel bu baax sëñ Baye Dame Mbaye di sunu mbokk di jëmm ju jàmbaare ci gëstu waajal na itam yu am solo yoo xam ne xëy na waxtu wi moo ko matewut waaye lim jot indi itam doy na sëkk ci ab yóbbal ba tax na noonu lin ciy doon dolli xam naa du doon luy luy bari fii day bërëb la boo xam ni képp ku fi ñëw dinga nga yëgaat ne Sëñ Tuubaa day jàmbaar la joo xam ni amul moroom bërëb bii ni mu soree ku dellu téeméeri at ak ñaar fukk ak nangam ca ginnaaw jëmm joo xam ni ay noonam ñoo ko jële am réewam indi ko fii ci tooñ defu leen dara waxu leen dara sëñ bu Buso mu baax mu daana wax ne kam sib wa dawaati alxidri daa'ihatun bi nafi cheykhin wa lam yafal wa lam yaquli nee na njaboot gi tumuranke nañ ne ko sëñ Tuubaa waxe ndax eh, wax na ne xusuur yi xalat wal ahlu an nii sama kër yëpp dem na ba wéet njaboot gi tasaaroo nañ li matxi alladi anhu almadixu qasiru jëmm joo xam ni deful waxul Sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ne mellantaan sax mosu koo rey mosuta lor doomu aadama ci waxam walla ci jëfam wal takfini aza jamii alaalamin wal takfihim azaya yaa rabbi amin loolu la daa ñaan yàlla na ma yàlla def ba du ma mën a lor benn mbindeef doonoon jëmm joo xam ni yàlla da ko def kilifa ci biir mbooloo mu nekkoon dem ba sanc ay dëkk yar fa njaboot bu bari bu kenn xamul nu mu doon kilifa yor ay taalibeem ay doxandeem jóge fële ñëw seppi ko ca biir njaboot googee ci biir am réewam génne ko réew ma indi si ko fii sëñ bi ci boobu waxal na boobam ne bi ñëwee ba Conakry ci la xam ne fu ñuy wax Gabon fa lañ ko jëme ab saalum saalum moo dugg ci bato bi di sàkku ci moom ab dénkaat ne ko dama dama dégg ne dañ lay yóbbu Gabon moo tax ma ñëw di sàkku ci yow ñaan ak dénkaan sëñ bi nee na ca laa xamee ne fi ñuy wax Gabon la laa jëm tur keroog la ko dikk gis nañ ba mu génnee réew ma sëñ Mbakke Bousso ak sëñ Mamor Diarra <coughs> bind nañ leetar Cheikh Sidi Baabul Cheikh Sidiya di ko wax ne ko génnee nañ ko te xamuñu fuñ ko jëmee waaye mu di as gor koo xam ni mësula jàmbat mukk mësula dellu ginnaaw wax na leen ñoom tubaab yi ne leen yéen zalamtumul abd alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim axrajtumuuhu min diyaarihi bila xaqin wa jahada wa qasaahu lbala li wajhi man anhu afa ankum afa mooy yéen génne ngeen jaamub yàlla boo xam ni tooñu leen defu leen dara ngeen génne ko ay këram ci lu genn anamuk dëgg ak lim jànkonteel fii bii nekk muy Libreville de boo fi ñëwee li ngay njëkk a mooy ba mu fi ñëwee fa la tumuranke tàmbalee tumuranke sax ma nga tàmbalee ca ca ndakaaru ak ca ndar ndar rek wax na fa ne daj naa fa loo xam ne duma ko nett li mukk am na fa weer woo xam ni gaynde googu yi ñu wax foofee lañ ko ko boolee ak moom te lu wér la bi mu ñëwee ndakaaru bisub alxames la fa ñëw ànd ak koor moo ko nettalil boppam wax ne bi ma demee ba war a dog lañ ma woo ma yaakaar ne fu ne lañ may dugal ñu dugal ma ci néeg boo xam ne bi mu agsee nee na waa ji ko doon yóbbu da ko bëmëx moo tax tànk bi yem ci ak lu mel nag ràbb loo xam ne daa bënn tànk bi ba ci mujj gi dañoo gis dañ daa gis léegi boobee jëmm ju selle noonu sëñ bi ku ñàkk lor jàmmi kese koo xam ne ñëpp da leen a yéene jàmm daa ñaanal ñépp daa fàggul aw yiw ñëpp ni ko suñ bàyyi daam waxe di jëmm joo xam ne ju tuuti tefes dell nag ak yàlla waaye nag la ko jaraloon nga am na baat yoo xam ne bu ko waxoon rek kenn du ko indi fii waaye dafa doon ku dëgër ci suñu borom ba tax na fii bi mu fi wàccee coono yi jëkk fii xam ngeen ne am na fi ñetti weer jëm juróom benn weer ci wax yi gën a dëgër li fi gën a xam nga tubaab ku xam lu metti la xam nga nekk ci sa biiri noonu xam nga nun bi ñëw ni ngi ñuy di nu dimbali boole ñu ñoo xam ñoo ngi jàppalante te teewul lu ànd ak coono yoo xam ne fi ne nii moom daanaka xaw ma fu nu jëm waaye tàmbali na noo sonn kenn nag moom dafa nekk ci biir biiri noonam yoo xam ne seen yitte mooy lor ko fii ci dëkk bi bi mu ñëwee li njëkk a def mooy takk ko ci garab wut fukki soldaar ak ñett ñaar ak seen kilifa ñu tiireendoo teg ko ci garab tiireendoo ngir buñ ko jamee ñoom ñëpp mu tasaaroo jëmu ji tasaaroo xam nga loolu sëñ bi mënoon dañoo boole kenn rek mu mu tiire ko wahaba lil wahaabu fi thulaatha maa yuxjilul ashrata wa thalaatha moom tam lu wér la mooy gas am yeer moo xam ni dañ koo taal ak sawara dugal ko ci biiram <laughs> xam nga ñoom ñu ñàkk yërmande lañ radama rabbi ma aduwiya xafar li darari maanaam pax mi ne dañ ko gas ngir bëgg ma lor am na net boo xam ne sëñ Suwaybu bu Mbakke mu baax moo xam ne ne daana ko te muy lu wér mooy euh, cin loo xam ni cin lu mag la nee na ñu dugal ko ci ba pare taal sawara sawara ci suufam <laughs> waaye nee na bañ ne bañ dindee kubéeru cin gi moo ko ba mu ne jug taxaw nee na benn la xam nga loolu dëgg la nun doon koy fàttaliku mu metti nii waaye dangay yëg xol ya ko doon def xol yooyee xol yu woowu la sëñ bi laa lay wax xol yu ñàkk yërmande lañ nett li na ne ahlu badrin fi lañ njëkk a feeñoo gaañ yi fi njëkk a feeñoo gaañ ndax booba dañ koo sonal moo tax nag suñu boroom walla si bis lañ xëy di ko yóbbaale xam nga fu ñu dem di ko yóbbaale ñoom xam nga dañoo doy war ba ni ñëwee njaareem fi mu ne dañ ko sartaloon bisu set bu ñëwee day ñëw présenté wu ca ca ca gouverneur ba bañ xam ne mi ngi ci dëkk bi mu doo ko delluwaat këram waaye sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ Basiiru ni mu ko waxee jamono jooju bu bu bu féetaloon jihaat mooy gañe tubaab bi ndax ñi ànd ak tubaab bi sax jekkoon nañ ci bu sëñ Tuubaa jóge ñu ñëw ànd seeg moom waaye moom ànd ak loolu lépp daray na dafa bokkul ci mbiram kon fii buñ fi ñëwee nag yaakaaruma ne dañ fi war a nekk rek di noos ak di xéwloo ko kii fii moom war nañu fee wat sëñ Tuubaa sañ bi dëgg la li sëñ Baye daam wax mbooleem ñi ñëw fii ak la ak lañ bàyyi ci ay yitte firndeel na ne ñoom ñu ñu sëñ ñor lañ ñu bëgg sëñ Tuubaa lañ loolu moom firndeel na ko moo xam ñi ñu fi fekk la ak ñi nga xam ne ñoo ñëw waaye téewul nag diirub ñu fii ne war na am nekkin wu ñu fi nekk fii de yaakaar naa ku fi ñëw sa xel war naa dem ci lu baree bare bari war nga fee yokkoo war nga fee jëlee ay bind te ñu fàttaliku kat ne sëñ bi wax na ne li mu doon mébét ci diggam ak boromam fii la ko amee bi mu wàccee ci liibar Libreville rek foofu nee na lim bëggoon lépp fii la ko ame yassara lil muna la daal libar wali man qaada lii maa gaaba an kulli wali mboolem li am li awliyaaw yi doon mébét te bëggoon ko te mënuñ caa jot nee na fii la ko suñ borom joxe lii qaada ahla badrin il uswuda man zaxzaxa alwaasiya walxasuuda ilaya qaada mashtaha kullu wali madxiya xayra alxalqi fii lii bër wali waaye lag ko may nag mooy lam ca teg mooy mëllëgtu rabbi mëllëgtu rabbi bi la daa liibar wali kulliyati daa jox ya suñ borom léppam moo tax suñ borom faye ko lim ko fay kon fii nag bërëbu tëbb la bërëbu root la bërëbu duy la fun fi dem ci jeexit yi nan teewluwaat Sëñ Tuubaa nun maanaam eh, amunu dara lu may li nu dese leen rek la mooy di ko bëgg moom Sëñ Tuubaa di ko bëgg rek tey am yéene ngoy ci moom ndax lam mënoon mënunu ko moom la lam la jëmmam attan lam lam yanu lam gàddu lam doon dund loola buñ ne xar baax la sax mën na ko woyofal ndax day mel ne kon moom du lu lum yëg te fekk lum yëg la fii de lim fi dund lu mat a di di di teewluwaat la gis naa ci mbindum boppam moo xam ni moom waxal na boppam ne lool sax xam naa bu ndemee maa yomb fa lay gën a kii waaye wax na ne tuumuranke naa fa ci wàllu ak col ak ci wàllu xewlu nii ku bàyyi daam waxee nga xam ne moom la ëppoon solo ci ay alalam mooy téeréem yooyee ak gaalam yooyee te moo ko daa yanul boppam tubaab yi li leen gën a yéem mooy gaal yi moom fu jëm dana ko yóbbaale te moo ko yanu boom maa yomba ak lambar na itam foo ci ne mbaar mam fa def moo ko defaral boppam nga xam ne wax na boo wax na ne moom day fexe ba ba kaw gi muuru rek waaye ñaari wet yi nee na foo foo romb di gis li ci biir te léeg-léeg ngelaw li ñëw wala taw bi ñëw yàq mbaar mi nga xam ne taw bi yëpp fii la ko taw seetal juróom-ñaari at sëñ yoo xam ne ci kawam la ko taw taw daanaka ndax li ko gënoon a moom sëñ bi mooy liñ ko doon jox da ko nangutoon a tubaab yi am na lu ñu warlul képp kuñ jàpp waaye loolu mosu ko nangoo jël moo tax sëñ tubaa sëñ bi maanaam ku jëmm ju xar baaxee ngi noonu jëmm ju ñàkk moroom a ngi noonu jëm ju ju ju ju ngi noonu sëñ bi daal yoon nun de yàlla baaxee nañu ko ca Sénégal waaye damay wax ne desi na noo xam gëddaam Sénégal dañ ko def rek yëfi murit def ko genn kër ci biir kër yi waaye waroon nañ ko jël def ko mbirum réew ma moom sax bu daa wax réew ma lay wax di ijaal rujuuxi ila qawmi sahaadatana sëñ sëñ bi eh, nee ko ci nee ko dama dama dimbali sëñ bi toogal diglu rek mooy addiyee ji dégg nga isaakallahu <laughs> xayran jërëjëf jërëjëf maa ngi daaneel sax sëñ Mamour waaye maanaam fii moom wax dëgg yàlla man bi ma fi ñëwee am naa xol bu xol bu lax <laughs> ndax xam naa ne jëmm jafi jaaroon jooju jëmm de moom góor dëgg la daal wax te kenn ku ne war na koo mën a nangul loole fii de ku fi ñëw danga gëmaat kàttanu suñu borom tabaraka wa taala da nga gëmaat ne suñu borom day mooy ala ndax suñu borom képp moo ko fi sàmm gis nga ba muy ñëw dafa wax ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi yàlla rekk la àndaloon ak kaamilam ba daa yor ak rasulullahi sallallahu alayhi wa ku fi ñëw fii danga nga gëmaat ne suñu borom day ab xakim la te mi ngi fi te dara ump ko te li xew lépp mi ngi koy gis ku fi ñëw day danga gisaat ne da war ngaa gën a gëmaat ne ndimbalul yàlla ba tey suñu borom ma ngi koy jagleel ña nga xam ne dañ ko jàpp gëm ko te boolewuñ kook dara waxoon na ne kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyun aziz wala yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyun ku fi ñëw da nga ne suñ boroom képp ku féeteeg moom dana féeteeg yow te loolu la jëflanteeg sëñ tubaa sëñ tubaa liñ ko tooñ nga xam ne natt yiñ ko teg fii ëpp na tolloo naag saari suuratu ankabut ay ay suuratu suuratu ankabut moo ko waxal boom waaye musta fayu te daa wax ne damaa mos ñu tooñ ma ma muñ ñu fay ma fayul ma fii ku fi ñëwaat da nga yëg ne la suñu borom wax ne inna minal mujrimina muntaqimuna ba tey ma nga ca ku fi ñëw da nga teewluwaat ne suñu borom day pay gam doon fay ña ko jaral ba léegi ma ngi koy fay ndax sëñ Tuubaa de nii ko sëñ Basiir waxee léegi daana wax ne tukki bii de bu amutoon dara du ko jar ndax nee na mboolem sunu mbir ñun ñi ko yaakaar ak mbir yépp nee na ci la jage ba tey des na ci gëme tërbiyeeg suñu borom gi nga xam ne moom lay tërbiyee gaayam yi ndax Sëñ Tuubaa li gën a mettil mbiram mooy jëmm joo xam ne tey fi mu ne awyoo sax bu ko doon matt du ko faxas du ko daq ba ci mujjug njëreem daanañ gis fel yi ñëw sam jëmm ji ba doo giseetu lu bokk ci eh, maanaam jëmmi jëmmi yaramu boppam yi di ko matt te du raf du leen dàq ndax bëgguta dóor di ci rey wenn wenn fel fii bi mu fi ñëwee fa maayom ba xam naa bon fa àggee suba sëñ Mamour dana ci ñëw ba ci mujjug njëreem daana wax nañ ne sax yi nga xam ne daa burux tànk bi maanaam ba ci mujjug njëreem daanañ daanañ ko ko daanañ ko daanañ ko ko génneel lu ca bokk ndax moom du dàq du faxas te loolu da ko jaayanteeg suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu daa wax ne fii la ko suñu borom tërbiyaa nag tërbiyatul xayi alladi laysa yamuut laysat ka tërbiyati xayin qad yamuut fii ku fi ñëw danga gëm ne suñu borom da a gëm suñu borom la mu waxoon ne wal aaqibatu lil muttaqiina ma nga ca ba léegi mooy ñi ko ragal tem jaral leen faw ñooy mujj mbir yi ndax ña doon jëflante jëflanteeg Sëñ Tuubaa kenn xamatu leen waaye Sëñ Tuubaa moom gis nga ba ilaa yawmi diin ay nit di ko sopp mu jaral leen ñu ñëw di xeñtu jéegam yooyee te mu jaral na lu bare bare itam mu jaral na lu bare bare bare kon sëñ Maamoor maa ngi jégg lu baax loolu mooy mooy mooy li ma teewlu ci jataay bi mooy daal bu soobee yàlla <laughs> Euh, jotaay bi daal mooy loolu mooy Sëriñ Tuubaa daal yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal daraja Sëriñ Tuubaa <laughs> wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw xam naa ni suba da man daal ku demut maa yomba yaay sama problème man lii jëmm ji doon def léegi nag lii nga doon def nii Serigne Cheikh Khadim surtout Cheikh Ibra bi nee na nag ku ne jóg jox ko àddiyee sëriñ Tuubaa ku bëgg mu yomb la rek te te moom moo jox moom moom sëñ Seex nag lu muy def ne moo ciy jiitu sëñ waaw sëñ sëñ jiilim sëñ Moodu joxe na sëñ Seex ma joxe ah, lii la rek nii la nan sot màggal gi daal ku bëgg mu neex lool ci yow dinga ñëw fii waaw te bu ñu demee Maayomba suba xam ngeen ni xam ngeen ni sëñ Baye Dame mii di sëtu borom saam moom la maamam li ko suñ tuwaa waxoon doy na sët nee na ma turandoom yëpp yaa ko ci gënal borom saam sëñ bolle mbay anamu moo ngi nii mooy taxaw nii bul dem sëñ bolle yow li tax nga jóg sa xamoo ko billaahi fii ngay taxaw yow dina nu gunge ci reer bi rek yow gunge ci reer bi rek ba jërëjëf bu sëñ boole daanalee dañuy sikkar ndax maam Cheikh dafa am wàll ci bis bi jàngkat yi nga xam ni nag kenn barkeeloo gu ci loolu du problème dina baax xam na nu ñuy def ñun ñun ñu fi nekk ngeen fekk lu ñuy def bu soobee sëñ Tuubaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقاء لسخطك وغضبك وابتغاء مرضاتك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وشعل كل يوم وكل شهر قليلا وحبيبا لي في الدنيا والآخرة ساحدا لي بالتوبة النسوح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعل كل ما كتبته كل ما كتبته قبل هذا اليوم عبادة مقبولة زكية لديك بفضلك وجودك وكرمك كما هو ظني بك yaa akram yaa akram al akramiina waj'al kulla maa yasduru min qalbi wa qalami wa jawaarixi fi haadha al yawmi ilaa yawmi liqaa'ika akbara ridaa indaka bijaahi sallallahu ta'aala alayhi wa sallama wa asimni min kulli maa yasuuni abadan واجمح يا جامع يا مغني بيني وبينك وحبلي كل ما يسرني أبدا مع كونك لي راضيا عني في العصمة والجمع والحبة آمين يا رب العالمين وأغنني بك عن الأرباب وبه صلى الله تعالى عليه وسلم عن الأسباب يا مغني في الدنيا والآخرة اللهم إني اتخذتك ربا وليا ونسيرا أبدا وسيدنا محمد وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا ووسيلة إليك أبدا وأحلى بدر رضي الله عنهم رفقة أبدا رفقة أبدا والمؤمنين والمؤمنات إخوة أبدا فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها قصيدتي هذه من أحب الشكر إليك يا بديع آمين يا بديع يا رب العالمين أسير مع الأبرار حين أسير وظن العداء أني هناك أسير أسير مع الأبرار حين أسير وظن العداء أني هناك أسير مسيري مع الأخيار لله بالنبي وما لي لخير الله عوت مسيري يسير بي الجسب الذي قادني إلى كريم عليهما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي liman kaana bil liman kaana li bil juudi wa huwa shakuuru nusuuri wa ta'yiidi wa ifti la dal'ida min al waasi'il wahaa bi fawwa nasiru amiri lada sayri wa muksi wasilati qadiman lahu waxwal qadimu yamiru أجوري على الوحاء بجلة كرما على خدمة المختار وهو أجير نشوري كوني عبد صلى العرس وحده قديما لخير الخلق وهو نطير يجيرني الكافي به ملأة العداء ومن كل سوء وجل مجير مسيري كوني أبدع قادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سحوري وأيامي عقدت لي سواحد بكوني عبد الله وهو سعير ستوري في الدار لمدحي محمدا بنظم ونثر و ونعم الستور بشوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي عما نحاو بزور قصوري قلت والآل عني تفرغت لمدح الذي عنه المديح قصير وحرور الورى قرور الورى قرا معرور الورى قرا نشار بكيدي وسنوا سنون وتنون قرور قرور الورى قرا نسار بكيدي وظنوا سنونا وفنون قرور قرور الورى قرا نسارى بكيدي وسنوا سنونا وفنون قرور لرب التفات إلى لعم تائبا له من الذنب والآفات وهو غفور لو تبت من حيب التفات لغيره ومني لو أعد علي الضمير لعدت ابتضى بيع وأرجو رضاء ومني له شكر يدوم كثير فجئت ببشر من وابقي سكوره عليه صفاء والمكوس حبور وفي القلب من رضوانه ما أكنه طنينا به إنا صدور قبور لمولاي حمدي راضيا عنه شاكرا على سر السر والقبير قبير رضيت بي ربا يسقر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فاكرم به ربا نفى عني العدا وساق المنى لي والجناب عقير رضيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وهو قد وقدي وفقير رضيت به ربا وليا يقودني مرامي وإني شاكر وفقير أموري له طوات والقلب طيب قريبا لدى الأعداء وهو بشير رفيقي كتاب الله هو المصطفى النبي وأصابوا بالبار حين أدور أخاطبه بالماء وهو بطيبة وإني لو جار هناك يسور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رضاه سرور jërëjëf Baye Bolle xasida gi tegal fii sa loxo bu subaa incha allahu taala njàngum maayo boobu fii lay tàmbalee waaye nag li ma bëgg a wax ngeen ko xam naa ko du ma ci sori sëñ Saliou nee na joxe bi jiit na laaj bi te ñun jàngkatu xaside yii bu fekkoon ab camp militaire la. allah bàyyi boole ñi mooy suñ caporal. kon li ma bëgg a wax xam ngeen ko jërul ma ci sori jóg leen rek. la ilaha illallah la la ilaha la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah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 مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله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 Cheikh Ibra Faal yal na daal faal nga yëngo faal laa ilaaha illallah lampo baabul muridiin laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah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 لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا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 muy Tawfekh ju rëy